dalee nag jàmm ci xam-xam procès en appel bu Khalifa Sall dooraat nañ ko naka altine bi nga xam ni moom la ñu génn gannaaw weer boo xam ni dañ ko dakkaanali woon la ko moo di jox li nga xam ni moo di défense bi ñu waajal seen l' appel en droit Abdou Khad lan mooy a nag xoolaat saytuwaat ab àtte boo xam ne njëkk nañ ko def mu doon boo xam ne dañ ko war a defaat léeg-léeg ko indi nag moom mooy ñàkk àndu ci li nga xam ne moom lañ njëkk a def appel moom nag li nga xam ne mën na nag euh, yu yaatu ci wàllu woowu nag maanaam reformation maanaam xoolaat saytuwaat li nga xam ne nag jugé nañ ko wala tamit ñàkkab nangu ci li nga xam ne moom la ñoo njëkkab àtte voie de recours boobu lee bi lee mën nañ ko woowee li nga xam ne nag moom mooy ponk yi nga xam ne ànduñu ci benn yoon ngir nag ñu mën ko tegaat ci table bi xool ko te fekkoon na sax ñu jot ko àtte boobu tamit mën na doon beneen boo xam ne nag voie d' annulation maanaam nag boo xam ne jugement bu njëkk bi sax dañ ko koy dindi ba mu set wecc naax dañ cee ñàkk ab ànd doon nag li nga xam ne léeg-léeg li koy indi rek moom mooy yenn yoo xam ne dafa rëq-rëq dafa am ci àtte bu njëkk bi lépp li nga xam ne nag woon lu baax te juge d'appel bi lee boobu nag su ko saytoo ñu defaat àtte boo xam ne mën na sax tax li fa njëkkoon daan ñu dindi ko ba mu set wecc ci wàll woowu nag mën na itamit boo xam ne léegi léeg day am yenn yu yees yoo xam ne nag am na ci da dañ ko ci mën a ñàmbaasaat ngir mën nag appel bi am lool la ñu woy voie d'achèvement forme yeeg délai it mën nga cee ñëw ci wàllu nag matière civile mën nañ ne appel doon nag li nga xam ne ñi ñu àttee te ñu nag jàpp ne dañ leen léser ñoom ñoo koy dugal doon nag dañuy jaar ci greffe ci cour bu bali ngir nag ñu weddi ba mu set ñàkkam nangu ci àtte bu njëkk bi ci wàllu woowu nag mën nañ ne yoon may na la nga def ko su fekkee nag jugement bi dañ koo génne jox nañ la gàpp gu weer ngir mën ko def ci wàllub euh, matière civile waaye su fekkee nag wàllub matière pénale mën nañ jàpp ne fukki fan rek la yoon may ci diggante bi nga xam ne nag euh, kii dogal ko àtte bi génn na ngir nag a tax ñu mën la defal beneen ab àtte Mamadou doon nag li nga xam ne xam-xamu tey bi la di leen joxaat dig daje ci beneen yoon.